bismillahi irrahmani irrahim alhamdulilahi rabilalamin wasalaatu wasalaamu ala ashrafi almursalin sayidina wa maulana muhammadin al amin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa ridwanullahi taala al akbari an il abdil xadim wa an awliyaa illahi almuqarrabin maa ngi tàmbali samay kàddu ci turu borom di wax bismillahi rahmaani di sant yàlla yàlla mi borom mbindéef yi tey julli di sëlmal ci ki gën a tedd ci ñu yàlla yoon ci mbindéef yi julli googu nalaw ba ci ay ñoñam ak i saxaabaam mboolem seen di ñaan ngërëmal yàlla li gën a màgg yàlla na dotti ko ci kaw jaamub yàlla bi tey liggéeyaa ko na yonent bi sallallahu alayhi wa sallama ginnaaw loolu ñoo ngi nuyu waa assamadi yëpp nuyób islaam te mooy assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu di nuyu góor ak jigéen mag ak ndaw di jiital ci nuyoo bi sëriñ Abdou Samad Mbàkke moom sëriñ Sohaybu ginnaaw loolu nag nu fa yéene ànd ak yéen ci xasiida gi sëñ bi tënkee yow ma arafata balsasin xasiida gu tedd gi walla ab yaat yu tedd yi wala xitaa bu tedd bii nga xam ne sëriñ bi moo ko defoon te defoon ko ci bisu arafa ci balsasin 1332 xam nga nag sëriñ bi dafa fees dell jamonoom sëñ Tuubaa weer wu ñëw rek boo génnee ci def ca weer nga ne xanaa kii moom weer wi rek eh, ci la doon liggéey bu dee sol xaada sol xijja muharram safar rabihu lawar rabihu saani jumaada ula jumaada saani rajab lu ci ne sëriñ bi ay xasiida ay xasiida la ci defar bu dee bis yi tàmbale ci yowmal aat ba ci yowmu sàppi lu ci ne sëriñ bi defar na ci ay xasiida kon sëriñ bi dafa fees dell jamonom xasiida gi nag mu ngi ko tënkee yow ma yow ma arafata te nag bari na yum tënkee yow ma arafa de am na goo xam ne mu ngi ko tënkee haada duaaw arafa mm-hmm. xasiida gu neex la moom itam am na gum tënkee min intihaai arafa min laylati arafa waaw min laylati arafa ila intihaai yow ma arafa xasiida googu sëñ baa ngi la tàmbalee ci guddik arafa ba bisu arafa ba di jeex nga xam ne guddi gi ak jël gi ak guddi gi ak bis bi moom la sëñ bi jël mhm. ca booba sax sëñ Tuubaa ngi naan ki way xaraf yi yàlla rikkil na ko làmmiñal arab mhm. waaye am na gum tënkee yow mu arafata junnatan lii bisub arafa sama pakk la man sëñ Tuubaa moo tàmbale ci yadduxu iblisa aduwallahi ila siwa shahni rasulullahi yu bare bare la am na gum tënkee yow mu arafata bisir yi bisu arafa daal sama mbég la man sëñ Tuubaa allahu akbar am na gum tënkee yow ma arafata xidami mhm. moom itam xasiida gu neex la am na gum tënkee yow mu arafatay balsasin gum tënkee yow mu arafati balsasin mooy xasir gi ñu nar a waxtaane tey yow mu arafati balsasin mooy gi ñu fas waxtaane am na gum tënkee yow mi arafata wa maa xablahu bisu arafa ak liko ko jëkk ak la ca ginnaawam xasida yu bare bare la mhm. am na gum tënkee yow ma arafata tout court moo tàmbalee yaquudu nii ilal jinaani llaahu bi bisri laa ilaha illa allah mhm. ma ngay wax naan xasida gii ñaari xasida yi sun borom bind na ko ca saaxul xars ak saaxul kursi te du ko far mukk yàlla may na ki leen way ñoom ñaari xasida yoo xam ni mayu ko keneen ku dul moom te keneen ku dul moom du ko am ci ay jagle mhm. wahaba allahu tabaraka wa taala li naasimiha li naasimihima maa lam yakun li xayrihi xattun wala yakun li xayrihi abadan min al ixtisasaati la ko jiitu mooy euh, kataba allahu taala anna haatayni al xasidatayni kutibata bila mahwin abadan ala saaqil arsil majid wa ala saaqil kursi allahu akbar ma nga tëj ma nga ko jeexalee kataba allahu tabaaraka wa taala anna katiba haati al hurufi azamahu allahu tabaaraka wa taala wa azamahu bi xadri azamati saatihi wallahu ala ma naqul wakilu yàlla bind na ne ki bind araf yi yàlla màggal na ko allahu akbar yàlla bi màggal na ki bind araf yi ki bind araf yi yàlla sàmm na ko aar na ko kem màggaayu jëmuk seen borom ji allahu akbar am na gum tënkee min yawmi ashura wa yawmi arafata am na xasida gum waa euh, gum tënkee yow mu asura mhm. min yow mi asura wala yow mu asura euh, googu mi ngi jëm ci euh, tamxarit waaye gi ma bëgg wax mooy min yow mi xarafata ilaa yow mi asura xasida gum tënkee loolu tàmbalee ko ci yow mu xarafa ba ci bisub tamxarit kon xasida yu bëree bëri la yoo xam ne sëñ bi da ko bind te yëpp mu jëmale ko ci euh, bisu arafa dañ ci lim yi rek euh, ci tudd waaye yu bëree bëri la yàlla nañu yàlla fayal cheikhul xadim mi nga xam ne dafa fees dell jamonoom kon sunu xasida tey mooy yow mu arafati balsasin mu arafati balsasin mhm. am nañu ko bindee noonu am nañu ko bindee ma arafata balsasin waaye mu arafati balsasin moom itam noonu dañoo tudd ñaar yëpp rek ndax ko yam ci téere gis ko nga xam ko waaye yawmu arafati balsasin bisub arafa 1332 ci la sëñ bi defar xasida gi mhm. loolu moo tombeek le 29 dixième mois 1914 yow ma xarafa yow ma xarafa te mille Belsasine 1332 moo tolloog le 29 dixième mois 1914 ci la sëñ bi defaroon xasida gi kon xasida gi xasida gu <laughs> yàgg la mag la mhm. wax nañ ne ku ñu wax sëriñ Modou Anta gay mhm. ci mag ñi toppoon sëñ bi la teela a xam sëñ bi mhm. ci la bokkoon. moom la sëñ bi yónnee woon ci moom ne na ko yónnee ay way ndareem sëriñ bi yónnee ko ay way ndareem euh, sëñ Modou Anta yónnee ko ay way ndareem yépp mhm. ba fa jëwee nag ginnaaw goo mu ñëw fa nag ci la sëñ bi yëkkati xasida gi jox ko ne ko moo gën ci yow way ndar yépp ginnaaw ga lu mu daan def rek ci xasida gi di yow moo xarafati balsasin ca la ko def ba tey ak njabootam yàlla leen fi yàlla yàggal ñoom itam ñi ngi yore xasida gi ci lañuy def ci lañuy ñuy def ci lañuy ñuy man nag sama mbokk ndax sëriñ Modou ant Gaye mi sëñ Touba joxoon xaside gii mook sama maam bàyyi ñoo bokk ndey ak bàyyi mhm. mook pend bi diw jóob ñoo bokk ndey ak bàyyi penda bi diw moo jur Mor Penda Mor Penda jur Alaaji Seex Ture moo jur ma kon maamaat la ci man ndax mook sama maama bokk lépp moom la sëñ Tubaa joxoon xasida gi ñu ngi nuyu ak njabootam ñu ngi fii ci Tubaa ñu ngi leen di nuyu bu baax a baax kon yow mi araf yow mu arafati balsasin mi ngi noonu xasida gi sëñ bi mi ngi ko way ci ginnaaw géej gi Jurbel la ko sëñ Tubaa waaye fukki bayit la ak ñaar douze bayit ci bahru rajas la ko sëñ Tuubaa way xasiida gi nag xasiida gu bari secret la xasiida gu bari leer la xasiida gu bari ijaaba la xasiida gu sëñ bi dëxëñ lu bare bari la waaye la tax a jóg gi nag mooy at tahaddusu bi nixmati sant yàlla ci xéwalam yi moo tàmbale ci yassara lii mu yassirul asiri maxtaarahu liya bila masiri moo jeexee ci sakara lii mu yassirul asiri maxtaarahu liya bila masiri sëñ bi mi ngi ci sant yàlla naan yàlla mi yombal lu jafe yombal na ma la ma tànnal ci lu may dox seytaane daw na saytaane may kañu rëbb daw na jëm ci keneen ku dul man wan ma ginnaaw mboolem li ñu sib yàlla far na mu di ma jublu man sëñ Tuubaa yàlla moom nga xam ne mooy aji des ji mooy éternel ji yàlla moomu jox na ma alxuraan jox na ma dikram te mooy alxuraan yàlla moomu nekkal na ma man Sëñ Tuubaa gërëm naa yàlla te yàlla gërëm na ma ci loolu muy ànd ak makaarix wala amraad ànd ak feebar ànd gërëm naa yàlla yàlla gërëm na ma yàlla dàq na delloo na saytaane mu jëm geneen wet gudul sama wet man Sëñ Tuubaa yàlla moom muy def loolu nag moo ma teeyalal man Sëñ Tuubaa samay romb waay ak samay dëkkuwaay ku ñu rëbb ki te mooy saytaane mooy iblis daw na jëm ci keneen ku man yàlla mi mu in moo koy màng mu jëm ci keneen ku man allahu akbar mhm. sama hadiya ji tukkee ci yàlla ak ci yonent bi leeral na sama lépp mhm. leeral na sama lépp mhm. leeral na sama sama lépp setal na ko laa bëgg a wax kulliyati safat sama lépp sun borom hadiya ji jóge ci yàlla ak yont bi jëm si man leeral na lépp waaye wasafat tunu bii samay taraf ak samay naax yi samay wet ak yépp set na sell na tawfiixu yàlla mi aji gindi mhm. feeñal na ma lépp loo xam ne dafa lëntoon tawfiixu yàlla mi aji gindee te tawfiix jooju enkeewal suñu borom mat ko ñoom ñaar ñooñu tawféex jooju ak ilham jooju feeñal nañu man sañ Tuubaa lépp loo xam ne dafa lëntoon moo tax ba dal liyal yow ma bi rabbil xuyyabu aadani mi man xalaw xuyyiboo bis ni ko tey kumpa yëpp sama borom fés na ci man sun borom feeñal na ma kumpa yëpp ya fàdd yëpp suñ borom feeñal na ma ko sun borom musal na ma ci ñi ma bañ perte nañ ñoom ñi ma bañ moo tax ku sonn du ma jublu su man Sëñ Tuubaa mboolem lu ñu sib mboolem coono yi yàlla dàqal na ma ko mu jëm ci keneen ku dul man sama taxe yàlla bindi na ko ci lu mu di ko far te nag nekk gi ma nekk al abdul xadim loola sax na allahu akbar saadati bi xayri mahwin kutibat wa kaw nii wa kaw nii al abdal xadim sabat al abdul xadim nag moom beneen mbir la xam nga sëñ tubaa ay dimension la de am na ahmadou bamba kooku moom la tubaab yi jàppoon yóbbu ko ci géej gi kooku la tubaab yi jàppoon jàppe ko seen prisonnier ba tax mu naan asiru ma al abraari xiina asiru wa dannal hida anni hunaaka aziru kooku mooy ahmadou bamba takk ndeer la moo tax mënuñu ko woon a lor tubaab bi jël nañ ko ànd ak moom samaani xijjajin ilaa xalilan mënuñu mënuñ ci moom dara takk ndeer la ahmadou bamba mooy turam bi ko baayam tuddee sëñ bi dana ko indi ci turam ahmadou waaye am na beneen tur wu ñu wooyee alxadim mooy liggéeyaa koonu yonent bi <laughs> ala wasni fail siixati fail mooy koo xam ne guddeem ak bëccëm ak guddi ay dalam ak ak yëngatoom ak waxtoom yëpp dafa nekk dafa sax ci liggéeyal yonent bi sallallahu alayhi wa sallam xadim moo gën a mubaalaxa xaadim <laughs> xadim nag mooy ki nga xam ne keroog ba tubaab bi jàppee Serigne Touba di ko yóbbu ci géej gi ba tax Serigne Touba naan asiru mahal abraari xiina asiru wasanal hida anni hunaka asiru kooku mooy Ahmad Bamba mhm. waaye nag alxadim nag mooy ki wax ci biir asiru naan uxaatibuhu bilmati wa huwa bi taybatin wa inni lahu jaarun hunaka yasooru maa ngi waxanteeg yonent bi te yonent bi maa ca Tayba te Tayba mooy Madina man kat maa nga nekk foofu dëkkandoom bu koy siyaare kooku mooy xadimu rasul ala abdul xadim nag moom beneen mbir la beneen dimension la moo gën a kaw moo féetal lépp moo Sëñ Tuubaa nee ne xaabat maqaami han si wàl baaxal karim sama maqaamu ump na keneen ku dul yàlla ku dul yàlla mi aji des di aji tej sama maqaamu ump na la waaye lañ mën a xam ci man mooy wa inni abdul xadim man maay ala abdul xadim maqaama mu kawe la moom ala abdul xadim maqaamu mu kawe kawe la moo tax sëñ Tuubaa am na ñoo xam ne Ahmad Bamba lañ xam moom la ñuy jëflanteel am na ñoo xam ne Xaadimu Rasuul lañ xam moom la ñuy jëflanteel am na ñoo xam nag ala Abdul Xadim lañ xam moom la ñuy jëflanteel kon sëñ Tuubaa nee na sama taxe yàlla bind na ko te du ko farate mukk te nekk gi ma nekk di jaamub yàlla bi liggéeyaa ko na yonent bi sallallahu alayhi sama sallam loolu sax na moo tax yàlla. mii yombal lu jafe sant na ma gërëm na man sëñ Tuubaa sakara lii mu yasirul xatiir mhm, gërëmal na ma lam lam ma tànnal ci dul may dox kon gis nga xasiri gi xasir ak cant la sëñ bi da ci sant cantuk at taxaddusu bi nexmati di ci sant xéewal yi ko sun borom defal waaye nag xasida gu yéeme la mhm. yéeme gi rek xoolal bayru njëkk bi yassara lii mu yassirul xasiiri maxtaarahu liya bila masiri mas ngeen a gis lu mel noonu benn bëyit waykat bi way ko indi ci ñetti baat yoo xam ne seen valeur numérique seen adud nafsi ñooy tolloo te ñetti baat yooyu bokkuñu li ñuy firi bokkuñu wasd bokkuñu li ñuy firi même buñ bokkee wasd bokkuñu li ñuy firi yasara lii boo ko aradee cinq cent cinquante la lay jox juróomi téeméer ak juróom fukk yasara lii baatub mu yassiru boo ko aradee juróomi téeméer ak juróom fukk la lay cent cinquante comme neex nga xool ko miim quarante la yaa gi dix la moom mu yassiru muy cinquante siin su su waw si trois cent la muy trois cent cinquante raa gi deux cent la cinquante plus deux cent égale cinq cent cinquante yasara lii moom itam noonu la yaa gi dix la siin su wow ki trois cent la muy trois cent dix raa gi cinq cent deux cent la muy cinq cent nga boole ci lii gi laam gi ak yaa gi muy quarante muy cinq quarante nga dem ci maxtaara holiya bila masir yi gis nga baatub masir yi moom itam miim gi quarante la siin gi trois cent la muy trois cent quarante yaa ngi fukk la muy trois cent cinquante nga indi gi deux cent trois cent cinquante plus deux cent égal cinq cent cinquante mbokk yi lu jafe ngi nii benn bayit nga indi ci ñetti baat yoo xam ne seen valeur numérique ñooy tolloo e, ëppul yeesul moom la sëñ Tuubaa def ci yassara lii mu yassarul xasiri maxtaarahoo lii bilaa masiri te xam ngeen ne cinq cent cinquante secret la cinq cent cinquante fukki mu jiibu la mu jiibu cinquante cinq mhm. cinquante cinq fois dix ça te fait cinq cent cinquante wala bu la neexee nga jël aliyu aliyu buy tur yàlla bi nga xam ne mooy aji màgg ji aji kawe gi hmm. ke gën a féete kaw ñëpp sabbi isma rabbikal aala al aliyu ci turu yàlla bokk al aliyu valeur numéro gam mooy cent dix cent dix boo ko multiplier par cinq moo lay jox cinq cent cinquante tolloog yassara lii tolloog mu yassiru tolloog masir yi allahu akbar lu jafe la sëñ Tuubaa def na ko moo tax bayit woowu ah secret bu rëy mu rëy mi ngi ci waaye boo jëlee mu yassirul xasiri kii yombal lu jafe baat boobu boo ko aradee da lay jox mille cent soixante et un mille cent soixante et un mooy neuf latif comme neex nga xool cent vingt neuf fois neuf ça te fait mille cent soixante et un allahu akbar kon bayit bi mi ngi noonu yassare lii mu yassirul xasiri maxtaaro lii bilaa masiri sëñ bi indi na ci neuf latif innati na ci cinq cent cinquante fois trois mhm. te cinq cent wax naa leen ko léegi mooy fukki mu jiibu mhm. kon mu ngi noonu bayit yëpp boo ko arrêté dalay yox trois mille cinq cent quatre-vingt-deux mooy yassarali mu yassirul xasiiri maxtaara hóoliya bila masiri boo ko arrêté dalay jox trois mille cinq cent quatre-vingt-deux allahu akbar te 3500 582 mooy lan mooy mu yassirul xasiri juróom-ñeenti latif 1161 nga multiplier ko par 3 akbar boo ko multiplier par 3 lu la jox nga yokk ci 99 te mooy li mu asmaullahi l xusna nga xam ne juróom-ñeent fukki tur ak juróom-ñeent mhm. kon ñetti mu yasirul xasrir boo ko adadee lu la jox nga yokk ci 99 moo lay jox 3582 tolloog yassara lii mu yassirul xasiri maxtaarahu liya bila masiri allahu akbar mas ngeen a gis lu neexee noonu mu yassirul xasir la sëñ Tuubaa jël ñetti yoonam mu yokk ci 99 di asmaullahi alxusna ah moo tolloog bayit woowu yassara lii mu yassirul xasiri maxtaarahoo liya bila masiri yassara lii mu yassirul xasir valeur numéro ga mooy 1711 maxtaarahoo liya bila masiri valeur numéro ga mooy 1871 boo leen boole moo lay jox 3582 3582 mooy ñetti 1161 di juróom-ñeenti latif fois 3 plus 99 asmaul husna mu jox la 3582 waaye demal ca bayit ba mujj sakara lii mu yassirul xasiri maxtaar xooliya bilaa masiir yi mooy bayit bu mujj ci xasiida gi mhm. sakara lii rek mille deux cent soixante la sakara lii mille deux cent soixante la foofu it sëñ bi def na ci euh, mbóot ndax boo jëlee mu yassirul xasir gi ca topp mu yassirul xasir mooy mille cent soixante et un di neuf latif te latif xam ngeen ne ñëw na ci alxuraan juróom-ñaari yoon latif allahu akbar tur yàlla wu wu màgg la Mhm. sëñ bi indi na ko ay yoon yoon moom latif ci euh, dëxëñ na sekkar ba ay yoon yoon ci xasida ak mafatihul bisri xasida googu nga xam ne ko ko jàng euh, yaa ngi mel ne liirub yonent ci ñàkk bakkaar ku jàng ku jàpp ba set jublu penku jàng ko lu aajo rëy rëy benn yoon sun borom faj aajo jooju moom ma euh, mafatihul bisiri nga xam ne li ma ay baytam saadu la trois cent soixante-quatorze bonheur bu adadee bonheur saadu moo lay jox cent 374 mooy bayti mafaatul bisri bépp xasiida ak salaatu xal nabi wala gépp siixa salaatu xal nabi mu yasrul euh, gum mën a doon booba rek ci xasiida yooyu wala ci siixa yooyu ci salaato xal nabi mafaatihul bisri mën na laa wecc tihil xuruf ka jamihi salawaati kon mi ngi noonu kon sakara li 1260 la mu yassirul asir mille cent soixante et la gis nga mille cent soixante ak mille deux cent soixante li nekk seen différence mooy quatre-vingt-dix-neuf yi ma waxoon léegi kon boo jëlee juróom-ñeenti latif muy mu yassirul asir nga yokk ci quatre-vingt-dix-neuf muy turu limub asmaullahi alxusna turu yàlla yi gën a màgg yi gën a rafet walillahi al asmaul xusna fad'uhu biha quatre bi dix neuf yooyu boo ko yokk ci 1161 moo lay jox sakara lii te mooy 1260 kum neex nga xool ko allahu akbar moo tax xasida yow ma yow ma arafati balsasin ah surub asmaullahi xusna yëpp mi ngi rawatina latif rawatina mujib allahu akbar waaye nag benn tur la ci sëñ bi indi muy muin 170 muin ginnaaw bu ci indi al ilahu waaye yàlla moomu mooy mu yasiru mooy baaxi indi na ci turu yàlla wi di baaxi l'éternel kon xasida gu fees dell la kon gis nga sakara lii rek 1260 la 1260 mooy mu yasirul xasir 1161 plus 99 sëñ bi li muy def dafa am cohérence defu ko ci fa defu ko ci hasard allahu akbar dafa neex te les chiffres parlent nag pour ceux qui connaissent je veux dire hmm, chiffre day wax ñi xam-xam nañ ko adduna bi chiffre moo ko yore am na ñu ko xeeb lool nag doyadal ko jàpp dara waaye adduna bi chiffre moo koy doxal avion yi sax chiffre moo koy doxal téléphone yeeg yëpp chiffre la te xilmul xuru xilmul uh, uh, li mu xam-xamu chiffre dafa fees dell ci alxuraan mhm. dafa fees dell ci alxuraan dafa am xilmul xuruuf am xilmul aadaat lu ci ne xam-xamam la spécial kon sakara lii mu yasirul xasir maxtaar xooliya bila masir boo ko adadee valeur numéro gam mooy quatre mille deux cent quatre-vingt-douze loolu mooy alhamdulillah 148 fois 29 allahu akbar wala nga jël tur yàlla wi di mox yii nga xam ne mooy li mu bayitu euh, tuxfatul mutadarrihina fi tawassuli bi asmail mufaddalin 58 bii la tolloog tur yàlla wi di mox yi mox yi boobu boo ko arrêté 74 moo lay jox 4292 wala nga jël tur yàlla wi di xaw yu uh-huh. puis le ki am doole ki puissant nga multiplier ko par 37 ilahu moo la jox 4292 kon yassara lii mu yetturul xasir te mooy yow mu xarafati balsasin mi ngi noonu xasiida gu yéeme la xasiida gu neex la xasiida la ko lu ne mën na ko lu ne mën na ko fukki yoon yeeg ñaar ku ko jàng ci aajo jum mën a doon ak lu mbir jafe-jafe suñ borom yombalal loolu moom yow mu arafati balsin fukk ak ñaar rek doy na ci sëkk ci aajo jum mën a doon allahu akbar waaye nag la ci gën neex nag mooy salaatu googu sëñ Tuubaa tëjee salaatu googu nag moom beneen mbir la salaatu gi sëñ Tuubaa tëjee euh, euh, yow mu arafati bal sasin ah kooku moom mbir la salaatu googu mbir la te mooy allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa mawlaana muhammadin wa alihi wa sahbihi waxfir li jamia ma asaytuhu fi lmaadi walxaali waxsim ni min almaasi fi lxaali walmaali amin ya rabbal alamin yow yàlla yàlla na nga julli sëlmal mbarkeel ci sunu sang sunu kilifa Muhammad ak ñoñam ak saabaam nag ma jéggal mbooleem loo xam ne mayoon naa ko ci li weesu ak li teew mbooleem li ma jëfoon ci tëdu noona ci lu weesu ak ci lu teew nag ma ko jéggal waaye nag nag ma aar wax sim nii minal maxaas nag ma aar ci bàkkaar yi ci mooy yàlla ci lu teew ak ci lu ñëw waaw ku yàlla yàlla ku yàlla jéggal sa bakkaar yi weesu ak yi teew waxtu wi nga nekk mu sàmm la ba doo def bakkaar li ñëw mu sàmmala ba doo def bakkaar xanaa kenn gëntu laa texe ah salaatu gi loolu la moo tax salaatu gi ku koy sikkar sunu borom da lay jéggal sa bakkaar yi weesu ak yi teew waaye di la aar ci liy ñëw ak ci lu teew bu def bakkaar mbokk yi kon daal yow mu arafati balsasin mi ngi nii am nañu ko bind doon am nañu ko bind yow ma arafata balsasin kon yow mu arafati balsasin mi ngi nii am na ci loo xam nag des koy junj rek waaye loxo du ko laal de gémmiñ di ko tudd aa wa fil umuur ma la yuskar bal na ci loo xam ne moom ko tudd dañ koy junj rek des koy xam rek da ci sant yàlla waaye lépp a ci biir xasida yow mu arafati balsasin mhm. yàlla nañu yàlla fayal sëñ Tuubaa yàlla nañu yàlla fayal sëñ Tuubaa yàlla nañu yàlla fayal sëñ Tuubaa te dolli ñu ab cofeet ak mbëggeel ci moom wa axiru daxwaana an alhamdulillahi rabbil alamin wassalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu.